أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey ñoo ngi ci buntu min al imaani billahi asabru ala aqdarillah tey mbokk jullit yi noo ngi jël li desoon ci dars bi passé mooy xadiisu anas ida araada allahu bi abdihi alxayra ajjala lahu aluquba fi dunya benn parti boobu lañ jëloon su ko defee ci kàttanu sunu borom ñuy eggali tey beneen parti bi des mooy wa ida araada bi abdihi charra amsaka anhu bi dambihi sunu yonent muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na su yàlla nammalee ab jaamam aw ay sunu boroom subhanahu wa taala mbir yi ci loxoom la nekk mooy def mooy dindi mooy amal njëriñ mooy tege lor moom yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla nammalee ab jaamam gis nga ndeke yow mi mbiri di dal li njëkk li nga war a yëg mooy ab jaam nga ab jaam nag lu neex sangam teg ci kawam bu ko neexee mu liggéey loola bu ko neexee mu noppal la lu ko neex mu def yàlla su nammalee ab jaamam aw ay amsaka anhu bi dambihi amsaka anhu day téyewu ci moom bi dambihi ndax ay bàkkaaram yu bari xam nga tey li am ci sunu jamono ci ndof léeg nga gis benn waay buy mooy yàlla alalam di gën a bari wér gu yaramam di gën a dem dooleem ak kàttanam ak mën-mënam di gën a dem ba gars yi dañ naan waaw mii lan moo tax sax mii bandi yi rek ñoo am alal fi mu nekk nii boo xoolee ku jóg dugg ci caaxaan rek da ngay am alal seetlu leen lool dugal dugg ci musique bi fii ak deux mois léegi nga gis benn waaye bu ñëw jëndal la matériel yëpp financé la léegi nga gis ñu may la passeport diplomate léegi nga gis affaire yi commencé ubbeeku jógal nga nekk mbër jógal nga nekk jógal nga nekk ci xeet yu bon yépp nga xam ne mën nga kaa lim soo ci dugg rek léegi xéewal yi commencé ndeke loolu stratégie la bu yàlla di nattoo jaam yi waaw ndeysaan léeg-léeg ab jaam toll ci mbir yu mel noonu yàlla bàyyi ko yàlla bàyyi ko yàlla bàyyi ko yàlla bàyyi ko ba moom sax dafay jàpp ne ah est-ce que dee am na lii si kisaaki sax ndax dee am na lu tax yàlla di tardeel mbugal mi lu tax yàlla bàyyi ko noonu lu tax yàlla téye mbugal mi ci moom mu ne xatta yuwaafi bihi yawmal qiyaama ndax ëllëg yowmal xiyaam yàlla mën kaa duma duma yu metti ëllëg yowmal xiyaam yàlla mën kaa matalal mbugal gi dara du ci manki ni ko yàlla sottee woon xéewal gi noonu la ko yàlla di sottee waamey mbugal dara du manki kon ndeke ab jaam warul warul bew loolu alxuraan di wax kallaa innal insaana la yattaxa an raa ustaxna yàlla nee na doomu aadama dafa gaaw a bew dafa gaaw a bew te dëgg la doomu aadama ak a gaaw a bew ñu ne yàlla kañ la doomu aadama gaaw a bew mu ne bu gisee ne am na alal rek dafay commencé bew waaw su daan fréquenté benn millier day bàyyi foofu su doon ànd ak ay nit day bàyyi ñooñu waaw waaw su dëkkoon ci benn quartier day toxu su daan nuyoo du dootul nuyoo su daan wax wax ju bari léegi dootul waxati day gis doomu aadama rapidement mu changé lu tax mu changé parce que dafa am alal boo waxee mu ne léegi gars yi du ma seen morom quoi bal sax danaa ne waaw ana ana seen gaaya moom génn na ci day fàtte ne barki démb fii la nekkoon bu bu gars yi añee ba pare mu naan meer ana bool dof est-ce que meer muccaat bi des na est-ce que ataaya ngeen ba pare dafay fàtte ne fii doon na fi toog di laaj cotisation ataaya waaw ku nekk mu ne la nattal juróom doomu aadama boobu nag nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo namm ci moom aw ayam mu ne haza al hadis rawahu tirmisi wal hakim wa xassanahu tirmisi axrajahu tabrani wal hakim an abdullahi ibnu mugafal wa axrajahu ibnu adi an abi hurayrata wa tabrani an ammar ibnu yasir kon ñii ñëpp yéen ñu yor téere yi ñii bokk nañ ci ñi génne xadis bi mu ne ida araada allahu bi abdihi alxayr ajjala lahu aluquba fi dunia loolu weesu woon na yaakaar na jàngoon nañ looloo mu ne wa ida araada bi abdihi shar amsaka anhu bi dambihi mu ne ay axara anhu luquba yàlla day yéexe mbugal mi bi zambihi ndax bàkkaar yi muy def yàlla day bàyyi rek bàkkaar yi wala ngaan di dem ndeysaan xatta yuwaafi bihi yowmal qiyaama ba yàlla matalal ko ko nag ëllëg yowmal qiyaam nga xam ne léppay mat dara du manqué mu ne qaala al aziziyu laa yujazihi bi zambihi fi dunya xatta yajiu fi l axira yàlla du ko fay bàkkaar yi muy def fii ci àdduna déedéet kañ la ko yàlla di fay su ñëwee àllaaxira te nag àllaaxira moom su fa doomu aadama demee yàlla di la fay te fayu la lu baax rek mooy alku nga lu tax lu tax ku dem àllaaxira yàlla fay ko lu bon mu alku lu tax loolu ah ah ndax amatoo nooy deltoo ginnaaw amatoo tuub amma fii ci àdduna sax doomu aadama yàlla mën na kaa fay lu bon mu gaaw tuub mais boo reppee ba dugg bàmmeel mbir mi jeex na terminé tuub amatul bal sax waxuma nga dugg bàmmeel waaye am na fooy yegg ci sukuraat soo tuubee kenn dootu la baal ndax xam ngeen ne buntu tuub mi ngi tijjeeku ba fii may wax yéen dafa tijjeeku kañ lay tëj kañ lay tëj buntu bis bu ñu xëccee ruugi ba ci sa boli gi boobu soo tubee te kenn du la baal ak ban bis bu ñu xëyee gis jant bi fii jant bi fan la doon génnee penku ñu xëy gis ko fii sow boo yaay damay tub kenn du la baal parce que tuubatoo ngir yàlla dangaa tuub ngir ragal xam nga ne da ngay dee xam nga ne yàlla da lay mbugal kon sunu borom subhanahu wa taala léeg-léeg dana yéexee nit mbugal ndeke dafa am lu tax mu ne mustawfiral zambi zunub yàlla matalal ko bakkaar yu mu doon def ci àdduna yàlla matal ko ko waafiha mu ne fa yastawfi ma yastaxiquhu min al iqab yàlla may ko fay ko matalal ko ba mu mat sëkk dara du manqué ci mbugal mi nga xam ne moo war a dal ci kawam ni mu doon noose ci àdduna di pagaay di cakaay di cëppi cëppi dugg ci lu bon bunt bu bon bu nekk mu dugg ko bal sax danaan yenn saa yi nit ñi ñu ne am na loo xam ne de kenn defagu ko ci bon mu ne man dinaa ko def te mën naa ko def mu dem def ko ñëw ne gars yi lu ma leen waxoon ne gars yi ne yaay ngand mu ne waaye yow man fii booy dara daf ma të noonu nag la la yàlla di jàppe yow man xiyaam wan la man tamit fii àllaaxira amul lu ma të tey lépp ay mat waaw dinañ la mbugal mbugal moo xam ne te mbugal mi ñu la war a mbugal yow kenn lañ koy mbugal wala yuadibu adabahu wala yusiqu wasaaqahu mbugal mi ñu la war a mbugal yow rek la ñuy mbugal yeew mi ñu la war a yeew yow la ñuy yeew kon doomu ndey yi loolu dafa jar a bàyyi xel mu ne wa haadihi l jumla min axiri l xadis lii moo nekk ci feemu xadis bi mu ne wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annabi inna izama aljaza ma izami albala ila axiri mu ne wax ji yonent bi wax ne màggaayu fay moom màggaayu balaa ñoo tolloo màggaayu fay moom màggaayu balaa ñoo tolloo nit su ko yàlla nattoo nattu bi lu mu toll ci métti su ko yàlla di fay noonu lay toll doy na rek ngeen gis benn xissa bu ndaw ibrahim bi ko yàlla di nattu ne ko reyal sa doom tabaski loolu netti woon na wala mettiwul ak fi mu jaar xissa bi ci nelaw bu mu nelaw gént gis dafa war a rey doomam ba mu yeew woo doom ji waxtaan ak moom dem ci jabaram waxtaan ak moom ba doom ji nangu mu xuus ak moom montagne yi màkk jëm Mina di ko rey iblis topp leen muy sànni iblis ay xeer ba keroog muy tëral doom ji di ko waaj a rendi suñu borom subhanahu wa taala sëve doom ji suñu borom subhanahu wa taala sëve ko moom suñu borom sëve jabaram ñoom ñett ñëpp rëcc loolu metti woon na wala mettiwu metti woon na bi fay bi ñëwee est-ce que fàttaloowu leen métit bi fay bi xoolal ñun ba léegi ñu ngi koy feete ba fii nu toog ñun ñu ngi koy feete jamono Ibrahima ak léegi ñaata at la ku ma koy calculer Ibrahima ak léegi ñaata at la ana mathématicien yi gis nga xoolal fay boobu yàlla di fayoon Ibrahima ba léegi nii ndeysaan nit ñaa ngi ciy xéewlu soo demee tey màkk gis xéewlu gi ñuy xéewlu ci ñaanu Ibrahima la gis nga kon nat lu mu rëy rek su la yàlla di fay fay bi day rëy waaw olof yi wax nañ ko de ku def lu rëy am lu rëy waaw moo tax ndekee yenn balaa yi yàlla di teg jaam pour raxas ko pour fóot ko ay bàkkaaram ak ay tilim tilim ak ay manqué manqué maam nee na loolu daf koy def yàlla daf koy def ngir lan ngir fay la mu ne waaye nag yenn saa yi wa fihi tanbih nee na lii yonent bi wax inna izamal jaza ma izamil bala nee na wa fihi tanbih yeetee ngi ci yeete ñun ñëpp war nañu yeewu ci lii lan lañ ci yeewu mu ne ala husni raja wa husni zanni billahi fi ma yaqdihi lak war na noo rafet njort waaye war nañoo rafet yaakaar kon bu sa bopp metteetee bul jàmbat bul saalit bul kepetu bul weddi rafetal yaakaaral ne sa bopp bi di metti dafa am bàkkaar boo def yàlla teg la ko ngir dindil la bàkkaar bi boo xeetee ñàkk amoo lu ndékkee wala amoo dépasse jàppal ne yàllaa may nattu yaakaaral ne dara la bu mbir yi dëgëratee bul saalit bul ñax bu mu tax nga dem def loo war sa def bal jàppal yaakaaral ci sa boroom yaakaar bu rafet ar raja ban raja xusnu raja yaakaaral ci yàlla lu rafet loolu nag tolluwaay la yàlla teg la natt ka accuser sa bopp ba ci boroom xam-xam yi dañuy wax ne même ci sa doom wala sa soxna wala sa fas bi nga yéeg wala oto bi nga xëy taal oto bi mu bañ a tàkk bul accuser bul accuser mécanicien bi accuser sa bopp soo déggaloon yàlla oto bi déggal la soo sa doom amee problème sa diggante ak moom bul accuser sa doom accuser sa bopp soo déggaloon yàlla sa doom bi déggal la sa jabar ba fu mu yegg wala borom xam-xam yi di wax ngay tuumaal sa bopp bis boo gisee jafe-jafe ci sa dund delluwaatal sa bopp defal muraajaa tey est-ce que xooluma lu ma warta xool tey est-ce que laaluma lu ma warta laal tey est-ce que waxuma lu ma warta wax tey est-ce que dégluwuma lu ma warta dégg nga yaakaar nag ci yàlla yaakaar bu rafet ne lii yàlla teg la xëy na léeg lee nga defoon moom la lay dindil waaye beneen bi mooy xusnu zan nga am njort bu rafet ci yàlla jullit njortoom dafa war a rafet ci boroomam njort mu ngeen njort yàlla nee na li ëpp ci njort bàkkaar la inna baada zan jullit dafay rafet njort ci boroomam waaw yaakaar na yàlla da lay yërëm yaakaar na yàlla da lay jéggal yaakaar ci yàlla ne yow say mbir yëpp yàlla daf koy defar mais am na ñoo xam ne seen yaakaar ci yàlla yëpp lu bon la du ñu xalaat ci yàlla mukk lu baax loolu ab jullit du ko def ab jullit day wóolu boroomam day am ci moom yaakaar bu rafet mu yëg ne lii yàlla teg ko amaana na mbir mii lu baax rek la ci yàlla nam danaa feebar feebar bi yàlla teg la am na lu ci yàlla nam xéewal la ci yow xëy na amoon na leneen lu war a metti loolu yàlla teg la feebar bi benn buur dafay waxtaan ak benn mbokkam waa ji ko nag gën ko gëm yàlla waa ji ëpp ko imaan waa ji moom ci wetu buur bi la nekk lu xew rek mu ne looloo gën de lii de moo gën ci ñun buur bi ne ko yow lu xew rek looloo gën eh kii dóor leen ko ci kaso bi mu ne looloo gën ci man ñu jàpp waa ji tëj ci kaso bi fekk buur bi dafa am benn waay bu ko doon defal dara daal di koy gaañ ci nopp nopp bi dagg mu ne ana sama waa ji ñu woo ko mu ne gis nga de sama nopp bi dagg na mu ne ko looloo gën ci yow mu ne ya yow ma loo may wax lu dul sama nopp dagg nga ne looloo gën ci man kii dugaleen ko ci kaso bi mu ne man it looloo gën ci man buur bi génn ñu jàpp ko war ko rey ñu xool gis nopp bi dafa dagg ñu ne kii dafa manqué te yàlla bi suñ koy rey lu mat lañ koy reyal ñu bàyyi ko mu ñibbi ñu demee mu ne ci sama waa ji xam nga tey lu xew mu ne lan la mu ne man de dañ maa waroon rey waaye nee nañ damaa manqué mu ne waxoon naa la nopp bu dagg bee gën mbokk yi nopp bu dagg ak baat bu dagg lu gën kon kay looloo gën mu ne koy waa yow sa kaso bi nag mu ne ah xanaa nga mu ne kaso bee gën parce que yow bu ma àndoon ak yow ñu xool la nga manqué ku ñuy rey mu ne wax nga dëgg de kon mu ne lu yàlla def rek noonu la loolu li gën mais nag ñun suñu basiira suñu gis-gis kan ci ñun moo doon tukki avion bi mu raté ko ñu ne ko looloo gën mu kontaan waaye sa waay looloo gën mooy waxi lan o heure bi waroon ma fekk Italie nga naan looloo gën fekk amaana ne vol bi boo demoon ba asamaan day këpp ñu ngi nettali benn waay boo xam ne dafa war a tukki jabaram gént na avion bi day explosé jabar ji yeewu gis waa ji tëdd te gént na heure sàngam avion bi day tàkk jabar ji def ay pexe ba jëkkër ji tardé ba avion bi départ mu yee jëkkër ji yeew jëkkër ji yeew i dama tardé ni muy préparé jabar ji taal télé bi journal bi lay déglu xool ndax affaire bi dina am vingt minutes mu dégg ñuy annoncé ne avion ba daanu na muy daw di wax jëkkër ji fi mu nekkoon ne ko avion bi nga waroon tukki avion ba daanu na mu fekk jëkkër ja dee kon kooku dafa waroon dee bis boobu rëcc amul yàlla lu mu def yàlla du def hasard doomu aadama mooy def hasard mais yàlla du ko def yàlla lu mu def rek am na lu nekk ci ginnaaw li tax mu def ko loolu la ñu aaya bi ci kanam hadis bi di jàngal mooy wa asa an takrahu shay wa huwa xayrun lakum amaana nga bañ dara fekk lii nga bañ moo gën ci yow waaye wa asa an tuhibbu shay wa huwa sharrun lakum amaana nga bëgg dara lii nga bëgg musiba la ci yow lu waral ñaar yépp mu ne wallahu yaalam wa antum la taalamun yàllaa xam yéen xamu leen asa an tuhibbu shay wa huwa sharrun lakum ah waaw non dama ne aaya bi ne ci suufu xadis kaw xadis suufu xadis amaana doomu aadama bëgg dara loolu mu bëgg musiba kese moo ci nekk xoolal fi am na ñoo xam si ñun dañu bëgg xale bu jigéen sawaay bu meesu bët yi tàkk mu monte ay xef monte ay wee monte bakkan monte tuñ monte bëñ monte ay ans monte dënn monte dàll waaye xam nga ne loolu charrun laka baaxul ci yow wala baaxul ci yow di parce que day yàq sa diine day yàq sa njaboot mais ñun ñii génn wàll gi moom lañ bëgg te baaxul ci ñun ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne doomu aadama yi ci ginnaaw loolu lay daw guddeeg bëccëg léeg-léeg ñu ne la yow li baaxul ci yow di nga ni ah waaye yow bañ a baax lii di xéewal nga naan lan fekk xam nga ne baaxul léeg-léeg nga bañ dara loolu nga bañ moo baax ci yow julli ci waxtu ak xëy waxtu bu gën ah julli ci waxtu ak xëy waxtu ban lañu respecté du tax du tax pourtant bii dañ koo bañ te moo gën ci ñun bii ñu bëgg ko te baaxul ci ñun loolu mooy yeb yàlla ñeme tubaab xaw ma ñeme ragal tubaab bi ñepp yàlla ngay tardeel waxtu yàlla yi te ñeme woo tardeel waxtu sa patron kon amaana nga bëgg dara wa huwa sharrun laka lii nga bëgg musiba la ci yow asa an takrahu shay amaana ñu bañ dara fekk lii ñu bañ suñu jàmm ci loolu la nekk lu waral noonu nag mooy yàlla xam ñun xamuñu bokk jullit yi mu ne wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax inna izama aljaza ma izami albala lu nattu rëy rëy rëy rëy rëy fay bu ñëwee noonu lay toll ay ma izami albala izami aljaza natt lu mu rëy rëy rëy yàlla bu lay fay noonu lay toll mu ne wa anna allaha ida ahabba qawman ibtalaahum mbokk yi yàlla bu bëggee ay jaam da leen di natt waaw mbokk yi ab militaire ab soldat balaa ñu koy takkal grade nuñ koy def dañ koy examiner wala dañ koy defal ay tests muy réussir di réussir di réussir ba ñu xam ne mérité na grade bi ñu dokk ko ab élève balaa ñu koy jox diplôme nu ñu koy defal ah ya defal examen wala ab chauffeur balaa ñu koy jox permis nu ñu koy def ah dañ koy defal examen ba ñu xam ne mën na dawal ñu jox waaw lan moo tax léegi ñu bëgg yàlla subhanahu wa taala xëy rek daal di jël jaamam rek bëgg ko dugal ko aljanna te nattu ko yàlla bu bëggee ab jaam da koy natt waaw olof yi nee nañ yàlla balaa mu lay takkal garaat da lay defal test xool ndax yow li nga wax dëgg la alif lam mim ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum yuftanun yàlla dalay natt su la yàlla bëggee dalay natt mbokk jullit yi nit ñi ñan ñoo ci ëpp nattu yonent yi lu tax ñoo gën a màgg ci nit ñi moo tax yàlla natt leen ba leen yàlla nattee ñu réussir yàlla def leen ay yonent parce que daf leen a natt kon yàlla su bëggee ay nit teg leen ay natt pour xool ndax ñoom nangu nañ wala nanguwuñu ndax gëm nañ wala gëmuñu ndax nangu nañ wala nanguñu waaw léeg-léeg nga gis jaamu yàlla bu yàlla natt ñu dafa ne day saalit allahu akbar ñu gis kii am iman ci natt bi ko yàlla natt la nit ñi di xam ne kii ndeke moo leen raw allahu akbar benn waaye xoolal waxuma sax natt yu mag dafa dem benn kër rek li ma leen di wax ci Sénégal gi la xew de mu ñu benn kër xaritam toog fanaan fa fajar jot góor gi indi café daan ne indi leen suukar si mbindaan mi jaawale suukar bu mokk bi xorom bu mokk bi indi teg góor gi defar kaas ba mu fees sawaay daan ne ko man de du ma naan suukar bi daal di jël suukaru jabetam moom def ci kaasam daal di xorom ak café gi jox gan gi gan gi di guux rek noppi di naan rek bi yëy muróom noppi di naan rek ba kaas bi def tuuti rek comme ku baax la paa bi ne ko waaye xaaral ma barkeelu ci sa kaas bi nii nag na daa teg kaas bi ni ko waaw yow looloon naan mu ne ko li nga ma jox mu ne ko mii li xorom ci nekk waaw mu ne bugguma la ko woon wax xoola kooku noonu rek am na nit ñi am na ñu baax te naan na ko ba mu digg noppi ne pat ndeysaan góor gi daal di jël kaas bi dem këpp ko defaraatal ko mun a ko baax na li ma naan doy na nga gis ni am na ñoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala da leen a bëgg ñoom bëgg gi leen yàlla bëgg sax dañoo dem ba dootuñu gis lu bon même boo leen defee lu bon sax lu baax la ñuy gis ndax mënatuñu gis lu bon lu baax rek loolu nag tolluwaay la degré la ci jaamu yàlla yi loolu nag li koy maye mooy li yàlla wax ci alquran fële wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xasin azim ndekey nattu yi tegu yi ci ëpp yàlla la bëgg su la yàlla bëggee nag balaa mu lay takkal garaat ne yow sama xarit nga balaa yàlla wax wattaxaza allahu ibrahima xalilan fan la yàlla jaar ak ibrahim mbokk yi balaa yàlla wax ne ibrahima sama xarit la lan la def ak ibrahima ah looloo gën a tuuti mooy rey loo ko doom ji gën a tuuti xanaa xam leen ibrahima bi mu nekkee mag la ko yàlla dugaloo néegu góor la ko yàlla xaraf loo boog ngeen dégg bi mu nekkee magum jëmm ñaan na ko ibrahima mu ne ko waaw mu ne ko xarafal tey jii fii ci ñun toog fii ku xaraful woon ñu ne la sa waaye ay xaraf de looy wax problème ñëw na ah allahu akbar xoolal mag mu toll na ibrahim nekk bu yonent nekk borom kër yàlla ne ko ibrahima xarafal kenn déggul ibrahima teg teg baat moo tax gis nga jàngaleen aaye wa isibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna fàttaliku leen ba yàlla nattoo ibrahima ca baad ya ibrahima matal ko bi ibrahima matalee nag yàlla mu nekkoon kii ponkal la wattaxaza allahu ibrahima xalila kon ndeke yàlla doo nekk xaritam lu dul mu nattu la ba pare ba mu wóor ne yow mii soo génnee fii buñ la nee xuux doo ragal soo génnee fii mission bi mu la sant kenn du la ko teree def moo tax gis nga Ibrahima bi ko yàlla takkalee grade bi ba pare est-ce que ragalati na est-ce que ragalati na amul kenn ku mu ragal Moussa noonu la yonent yëpp noonu lañ ba ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne faman radiya falahu rida képp koo xam ne yàlla nattu na la nga nangu sa mbir baax na jeex na faman radiya képp ku nangu li la yàlla teg li la yàlla may li nga tollool jeex na waaw foofu tamit garaat la léeg-léeg yàlla teg la leen li nga ne du ma ko nangu waaw li waa ji defoon benn président bu ñu gañe woon mu naan man xaw ma nan laa def rek ba ñu gañe ma xaw ma yàlla nan la def rek ba dindi lii samay loxo yàllaa ko moom ku nekk mu jox ko keneen moo la ko joxoon moo ne qul illahumma maalikal mulki tu'til mulka man tasha waaw wa tanzi'ul mulk mimman tasha wa tu'izzu wa tuzillu bi yadikal xayri innaka ala kulli shay'in qadir yàlla moom lu ko neex mu def moom mi la mayoon moo ko nangu kon bul jommi waaw yàlla mi la foloon moo la folli yàlla mi la mayoon moo la xañ yàlla mi la wéraloon moo la feebarloo waaw waaw moo la natt yàlla mi la dixoon am am bi moo la ñàkkloo kon nangul ba man saxita képp ku yàlla teg natt na nga mer falahu saxat bis boo meree li la yàlla teg meru yàlla ngay am te meru yàlla xejul cib jaamam kon su la yàlla tegee nattu nangul su la yàlla tegee feebar nangul bul mer bul ñaxtu bul jàmbat lan la lay jural ñaxtu yeeg jàmbar yeeg nangam ak nangam bàkkaar yu bari rek nga dee dem safara waaw yàlla teg la feebar ngay faju ba dem di fajoolu araam ngir bëgg a wér ba nga dugg ci lu xaraam loolu nga dee ci mooy sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na te tey looloo am ci dëkk bi looloo bëri nit ñi nga xam ne dañuy feebar di fajoolu araam samedi passé rek samedi samedi xawma vendredi ci guddi samedi dama doon yóbbu xale yi Lac Rose moo tax ñëw ma tafsir vendredi ci guddi lañ doon préparé di toggal xale yi li ñu war a añi jee parce que mënuñu dem ba foofu di togg bi ñuy ñibbi ay minuit ci carrefour bi dañu génn rek gis carrefouru mbedd mi ñu ngi fa explosé ay nen boobu nit ñi sax tëddaguñ ay 11 heures minuit mooy ñu ngi explosé ci carrefour bi ay nen loolu ci lan la bokk est-ce que loolu ngëm yàlla la est-ce que ku gëm yàlla dina jël ay nen di ko toj ci ay mbedd nen daa raam wala dafa dagan dafa dagan pour lekk la wala pour toj nen boobu yow mi ci am aajo wala nga feebar bëgg a wér wala wala wala wala wala wala doo ko saraxe ki nga sarax ñaanal la ak nga jël ko toj ko te ñi ëpp ci ñi def loolu seen aajo du faju de sëriñ bi moo la koy wax rek parce que nit ñi sëriñ yi ñoo ñoo jàng psychologie nit ñi nit ñi boo leen doon def lu yomb doo am dara kenn ñëw rek ne la ñaanal ma nga ne ko bismillah dañ jàng faatiha danaan mooy kii du ko danaan defoo lu ma dara kii man dem ñaanal ma mu naan jàngal faatiha muy ñëw mais bu ñëwee nga ne ko bàyyil ba guddi ba ñëpp tëdd nga simmee ko def yaramu neen taxaw ci mbedd mi jàng juróom-ñeenti tabbat yadaa xam nga loolu du dara du tus mais daf la koy ñàngalal pour nga nga tiit dafa ne dara la boo ko defee pare nag jàpp confiance fekk du tus wala bàyyi ba guddi nga simmee ko def yaramu neen sangu ci digg kër gi wala nga yéeg ci kaw garab gi wala nga dem wuti daalu mbaam ah xoola waa ji daan nax nit ñi daan ay bant la daan jaay ay bant takk ci ay buum mu ne lii sa ndigg nga koy takk xam nga lu ku koy bu koy jaay lu muy wax lii mooy galañu pelem sax yàb bi ku ko takk dëmm mënalu la dara mu ne gis nga galañ gii boo koy gas xaaju guddi ngay jóg sol dàllu mbaam dëppoo layu ku la gis dee koo gis mu dee nga diggay ni ci jëf way ne lii mooy pelem sex yàb bi mu ne ku la sex dalay yàbbi mu ne boo koy gas xaaju guddi ngay jóg dëppoo layu soldat li mbaam xam ngeen layu ah xamoo layu yow yow kii pël la yow déedéet mooy loolu ñuy def ceeb di ko kii bees xam nga ko léegi yow mooy layu mu ne loolu ngay dëppoo looy sol mu ne daal li mbaam mu ne koo gis day dee ku la gis day dee loolu yomb na wala yombul ngeen loolu yombul waaw nit ñi ñoo bëggul lu yomb moo tax sëriñ yi lu la wax mukk lu yomb da nga ñëw ne nangam ñu ne da ngay génne juróom-ñaari ju dama lay defal listixaar bàyyi ba guddi guddi vendredi jeudi ci guddi nga ñëw ma defal la listixaar waaw lu may indi mu ne indil juróom-ñaari juróom-ñaar ne yëpp weex ah waaw nga indi yëpp teg nga dem vendredi matin nga ñëw mu ne lisxaar bi baax na waaw ngay jënd nag ngay jënd nag waaw ngay jënd nag nag ngay jënd nag bi moom foog ñu rey ko ndax li ma gis lu rëy la kon lu rëy la ñuy rey di nag nga ni pare naa sama affaire baax na waaw mu ne la indi njëgu nag bi ndax fii lañ koy reyee fii lañ koy feese fii laay saraxe yàpp bi su ma ko reyee ba pare nag ba sarax yàpp bi ma doog laa woo nga ñëw waaw boo ñëwee doo fa gis sax buum nag moom lu mu lu mu tuuti tuuti dina jar ñaata ah cent cinquante deux cent xam nga loolu moom dugg na ba pare mu ne nag léegi nag nañ waxtaan ci fay bi nag gis nga pertement bi nga ne bi lay naa la daal yow au lieu sa affaire baax yaa ngi defar moom affaire am moom xam nga ne nag bu ñu rey dugal ko ci frigo moom sa minute bu nekk mu lakkalu supp waaw affaire am a ngi baax ba pare boole ci am na deux cent mille wala nangam bu muy bu muy jënde pompiteer am na waaw am na benn imam boo xam ne imam bi xam nga gars yi dañ daan bënn lu yaaf xam ngeen yaaf xam ngeen yaaf yaaf fu muy nekk ci bakkan su sa waaw boo amee yaaf sa bopp bi day métti lu bëri ak sa bëri léegi moom daf la koy bënnal xam nga suuy bënn yaaf loo indi ah ñaari kilo yàpp ku muy bënnal moom ku mu mën a doon ñaari kilo yàpp ngay danaan du ma laal xaalis ñaari kilo yàpp gis nga ah journée bi mbokk yi imaam bu bënnalee ñaari nit lu muy am est-ce que amul lu mu lay ne même boo bënnalee kenn rek yow moom sa reer taxaw na léegi nag imaginer nga bëgg a dundee noonu loolu lay wax ne danaan du ma laal xaalis ñaari kilo yàpp rek gi gis nit ñi nag ku nekk yor sa ñaari kilo taxaw yooyu te du yàpp bi du ci tus de li muy jël mën na ko bënn nii rek du dara mais ay naxaata ñoo nekk ci suuf waaw yooyu nag bu ci nit ñi yeewul noonu la ñuy dee nit ñi di leen nax di lekk seen alal te kat li leen yàlla teg du dara lu dul feebar la bu leen yàlla di nattu yàlla wax nañu faju ko sax mu wér waaye nag niñ koy fajoo yenn saa yi day nekk ay mbir yoo xam ne islaam gërëmu ko kon xadis baa ngi noonu yàlla bu bëggee ay nit nattu leen ku muñ yàlla jox la fayu ku muñ képp koo xam ne découragé nga dugg ci loo wërta dugg yàlla subhanahu wa taala daal lay mere nga yàqule àdduna yàqule alaaxira mu ne waqad yaxtaju bi hada alxadis man yaqulu inna almasaib yusaabu alayha maa takfir alxataaya mu ne am na ñuy layene am na ñuy daliloo di laye yàlla subhanahu ci hadis bii yàlla subhanahu wa taala musiba yi muy teg nit ñi musiba yi day dindi bàkkaar waaw am na ñuy firee hadis bi isa ahaba allahu qawman ibtalaahum am na ñu firee hadis bi ne sunu borom subhanahu wa taala jafe-jafe yeeg nattu yeeg musiba yi muy teg nit du leen lu dul dalay raxas ay bàkkaar mu ne loolu bokk na ci ñu ko wax wa rajjaha ibnul qayim haazal qawl mu ne wax ji ibnul qaw ibnul qayyim moom ci loolu la ànd anna sawaabaha tukaffiru alxataaya faqat nee na tiyaaba yi nga xam ne moom ngay jëlee ci su la yàlla nattoo ci jafe-jafe yeeg feebar yeeg nattu yi li nga ciy jëlee ci ay tiyaaba moom la yàlla di fóote say bàkkaar loolu tax ku feebaroon su la yonent seetee lu muy wax laa baasa tahuur insha allah du dara yàlla lay fóot rek loolu tax yonente alayhi salatu wasalam mu ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu xayr yonente bi ne maa waaru ci mbirum jullit maa yéemu ci mbirum jullit ñu ne waaw mu ne jullit daal yépp am yiw la ba pare mu ne wa laysa zalika illa li mu'min loolu nag kenn amu ko lu dul jullit ku gëm yàlla rek ma am loolu sa yëpp yiw la tey boo ne benn waaye bu liggéeyul jàng ba pare liggéeyul nga ne ko pourtant ñàkk liggéey bi baax na de est-ce que normal na nga fekk ku feebar fukki at tëdd nga ne ko feebar bi baax na lu ñu lay wax feebar bi baax na lu tax feebar bi baax na ñi dee nag ak moom mi tëdd lu tane ah ki liggéeyu na xool ñi dee na xool ñi jàngul ku tane kon kay am nga koo tane chaque jour koo gis am nga koo tane kon sëriñ bi nee na nattu yi yàlla di tagaate nee na pour dindi bàkkaar kese la waaye leneen nekkul ci ginnaaw mu ne illaa isa kaanat sababan lil amali saalih kañ lay nekk nag jëf ju baax mooy bu fekkente ne nekk na jëf yu rafet waaw yàlla teg la ko nga nangu ko muñ di ñaan yàlla bu dee da ngay faju nga fajoo ji lu dagan ah nangu li li la yàlla teg su boobaa mu nekk tiyaaba ka sabri lu mel ni muñ gis nga su la yàlla tegee dara nga muñ da nga am tiyaaba war rida nga nangu li la yàlla teg da nga am tiyaaba wa tawba nga tuub man de soo gisee yàlla teg ma lii ma jàng ba pare liggéeyu ma wala ma feebar wala nangam ak nangam man mii la xaar ma tuub soo tuubee nga am tiyaaba wal istighfar ngay jégglu aussi sa borom soo gisee lii nag dal ma sama bàkkaara bari xaaral ma tuub jéggalu sama borom fa innahu hiina izin yusaabu ala ma tawallada minhu su boobaa nag insha allah yàlla dina la fay ci mbir yi nga xam ne moo juddoo ci mbir mii mbir mii yàlla teg la lan moo ci juddoo muñ lan moo ci juddoo nangu lan moo ci juddoo tuub lan moo ci juddoo jéggalu su boobaa yàlla daf lay fay ay tiyaaba yu rëy rëy ndax yàlla dafay wax ne sama jaam bi kat teg naa ko mu nangu sama jaam bi teg naa ko mu muñ sama jaam bi teg naa ko mu tuub sama jaam bi teg naa ci kawam mu jégglu ma wala haza yuqaalu fi maana alhadis mu ne lii mooy li ñuy firee xadis bi inna izama aljaza ma izami albala iza sabara waxtasaba natt bu rëy lu ci nit di jëlee mooy fay bu rëy kañ isa sabara su muñee wax tasaba mu takku waaw dal takku téye boppam muñ su boobaa day am tiyaaba ndax dafay gëm ne am na boroomam bu ko natt mu nangu am na boroomam bu teg ci kaw dara ci kawam dara mu muñ am na boroomam boo xam ne bi mu ko tegee lan la ko jural mooy nangoog tuub ak jéggulu boroomam kon mbokk jullit yi loolu mooy sunu dars tey noo ngi ñaan sunu borom mu jéggal ñu dum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fekkee am nay laaj incha allah